ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu ñëwul kon ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu dajewaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq di sukkandikoo suñu téere bi di minhajul muslim bu abu bakar al jabir al jazairi ñu toll woon ci la nga xam ne mooy kitaabul xaj waroon a jël tey almaadatu rabia fi rukni al awal min arkaani al xajji wal umra naam kon tey jii mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai deux mille vingt deux di tombee git ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru shawal ci 1443 di sant suñu borom it ndax bind bi ñuy jàng ci wàllu aj mi ngi déppoog lu ñuy tuddee suñu borom di wax naan alxajju ashhuru maalumaat ñetti weeru aj yi mooy weer wi ñu nekk di shawal ak bi ci tegee zulqaada mi ngi noonu ak ba ca mujj di zulxijja li ñuy nar a jàngit mooy wàllu aj makka jullit bokk na ci li nga war a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin mooy lépp lu aj ci sa wàllu diini jullit da koo war a jéem a xam loole ndax yàlla dogal na da nga aji màkka wala doo aji ji ci loxo yàlla la nekk mën na amit keneen ku nekk ci aj laaj la ca fekk jëloon nga ca bind nga mën ko ca laaye biir su dee ne kon yow mi yor sa téere bu ñu jël bind bu jëkk mu ni arkaanul xajji wal umra lan mooy ponki aj ak umra lil xajji arbaatu arkaan aj day am na ñeenti ponk wa hiya al ihram ca mooy armal ba ngay armal wa tawaaf wër ga ngay wër kaaba ga wa sa'yu daw safa ak marwa والوقوف بعرفة دم تخو عرفة فلو سقط منها ركن لبطل الحج اربو خميني دن ci fonk yi dañ na la nga xamee ne nii mooy aj ga yàqu na walil umrati salaasatu arkaan umra moom ñetti fonk la am hiya al ihram mooy armal wa tawaaf wër kaaba ga wa sa'yu daw safa ak marwa fala tutimmu illa biha du mat lu dul ci ñetti yooyee kon yow mi nga xam ne jullit nga buñ la laajoon waa aj makka moom naka la ñuy aje màkk bokk na tontu bu simple boo xam ne jullit bu nekk war na koo xam mooy aj makka day daa am ñeenti ponk ponk bu jëkk ba mooy armal armal boobu am na détail yu ca aji waaye mooy ponk bu jëkk ba mooy armal ñaareelu ponk ba mooy wër kaaba ga ñetteelu ponk ba mooy daw daw safa ak marwa ñeenteelu ponk ba mooy dem arafa ñeenti yi ku ko matal sa aj baax na ku ci mankil benn sa aj yàqu na donte ne gannaaw ñeenti yi am na lu bare bari loo xam ne dafa aju ci aj gi yooyu moom boo ko deful it da nga ko mën a rectifier ci gàtt booy rey wala koor gooy woor waaye jàppal ñeenti yooyu mooy aj armal wër kaaba daw safa ak marwa taxaw arafa amma bu dee umra ñetti ponk moom la am lépp mi ngi amee fa kaaba ga nekk moom umra amul musdalifa amul muna amul arafa amul dara umra daal mooy armal nga ñëw nga wër kaaba gi daw safa ak marwa bu la neexee jël say bagage dem nibbi mi ngi noonu boo xoolee sa téere mu ne wa tafsilu hadihi al arkaan kattaali buñ la doon teqaleel nag ponk yooyu nii lay demee الركن الأول من أركان الحج والأمرة لي دي بونك بوجك تي بونك أج أك أمرة موي الإحرام موي أرمل وهو نية الدخول في أحد نسكين تموي يين بغي يين في دغ في نياري فاصون جامن يالله الحج wal umra imma ngay aj wala ngay umra mi ngi noonu al muqaaranati li tajarrudi wa talbiya ca mooy yéene ba it ànd ak summeeku bu dee góor a summeeku ci lépp lu ñu ñaw ànd ak it labbayka allahuma labbayka ba ngay wax walahu waajibaatun wa sunanun wa maxzuuraat ñeel na ko ay waajibaat ay wareef ñeel ko ay sunna ñeel ko lu ñuy tere kon mbokk mi ngi noonu armal ci aj mooy armal ci julli kiy julli bu jàppee taxaw solu yéreem ila axiri kañ la julli gi commencé fi mu defee takbiratul ihram allahu akbar ci la julli ga commencé kii aj makka it fa mu yeggee ca place ba mu war a armale daa di yéene ne commencé naa sag aj foofee la aj ga di tàmbale lu jiitu loolu lépp ay préparatif la waaye aj gaa ngay tàmbale fa mu armale mi ngi noonu loolu kon mi ngi noonu léegi nag nee na am na ay waajibaat boo xoolee si téere mu ni al muraadu min al waajibaat al acmaalu lati law turika axaduha la wajaba ala taarikihi dam waajibaat mooy jëf yi nga xamee ne nii su dee dañ caa bàyyi benn kaka bàyyi day war ci moom mu rendi ab gàtt aw siyaami ashrati ayaam in ajiza ani dam wala mu wóor fukki fan su lottee ci gàtt boobee wa waajibaatu lihram salaasa waajib ya war ci ihram ñett la al ihram min al miqaat mooy yéene ga ngay commencé acc nga commencé ko ca miiqaat mooy place bi yonent bi tëraloon ni fii lañ koy defe wa huwa al makaanu alladi xaddadahu shaari mooy place ba mu limité woon lii di sharia lil ihram indahu ñu war faa ihraami bi xaysu laa yajuuzu taaddiihi bi duuni ihram place boobi du dagan ci nga jéggi ko ca armalo liman kaana yuridu al xajji aw al umra ci képp koo xam ne daa bëgg a aj wala mu bëgg a umra mi ngi noonu qaala ibnu abbas radiallahu anhuma وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة yonent bi moo waxoon waa Madina balaa kenn armal ci yéen jëm ci aj wala umra ne génn dem ca ah Zulxulayfa ñu koy tuddee biiru Ali noonu la ko wutale woon waa Cham waa ak ñeneen moo tax mu ne wali ahli Cham al Juhfa wali ahli Najdi qarn al manazil wali ahli Yaman yalamlam mi ngi noonu mu ne nag lii qaala li ah mi ngi noonu qaala fa hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min gayri ahlihinna liman kaana yuridu alxajj aw al umra mboolem gox yi génne makka ñii di waa iraq waa yaman waa madina waa sham ku nekk dafa am benn gox bu yonent bi alayhi salaam ne gox boobee lañu war a commencé def umra maadaama diine lislaam diine mbooloo la mbooleem ñu dëkk ca gannaaw gox yooyu yépp dañuy daje ca place boobi suñu fa dajee nag lañuy ñuy doogoo armal àndandoo ñu ngi noonu wañe na kon aj makka dafa am place ci ay weer wax naa leen ne ubbi na depuis jour korité am place it ci fuñ ko war a tàmbali donte ni nii ki nga xam ne daa paase foofu doogoo armal te loolu it léeg-léeg danay dal ay lu bari ci nit ñi ci ixtilaaf yi borom xam-xam yi am ndax jëdda mënees na fa armale am déet lu bari ci ñoom dañ ne déedéet ki ñëw jëdda paase ne miiqaat bi kon ki nga xam ne daa paase miiqaatam doogoo armal dañ naan moom na tuur deret wala mu woor fukki fan amma ki armal jiitu loolu ku mel noonu tuurloowuñ ko deret waaye bàyyi na sunna looloo tax ki nga xam ne imaamu malik rahimahullah gis na benn waay mi ngi làmbaayoo làmbaayu ajam daa di génn jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam labbayk allahumma xajjan yàlla maa ngi mu lay wiir si ci aj yonent bi alayhi salaam ne ko sama doomu ndey imaamu malik ne ko sama doomu ndey yonent bi alayhi salaam day dana woon waa madina nañ dem ba zal xulayfa zal xulayfa doog fa armale mu ne ko waaw fii ak zal xulayfa xanaa du quelques kilomètres rek la loolu lan moo ci nekk mu ne ko li ci nekk mooy suñu borom dani fal yaxzari alladina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim suñu yéene suñu borom nee na nay moytu ñuy wuuteeg yonent bi fitna dal leen wala mbugal mu tar dal leen loolee kon moo tax ba la gën mooy demal ba place ba nga xam ne dañ fa war a armale nga doog a def foofu sa armal lañ laa jublu ci armal bi nag mooy yéene dugg ci aj gi amma bu dee sul su yére armal loolee bu dee ne day jafe ci nga def ko ca zul xalifa man nga koo def atal ba nga nekk ca madina doog a génn ñi nekk ci yenn avion yi it nar a wàcc jidda ca jàpp ne de seen miiqaat dañ koy romb ci biir avion bi la ñuy armale mi ngi noonu kon rasul sallallahu alayhi wasallam ni ñooñu day foofay seen place ba ka nga xam ne nag daa dëkk ci foo xam ne moom moo gën a jege fa yonent bi tëral ñooñu ñoom seeni kër la ñuy armale koo xam ne place ba ñuy armale da laa féete gannaaw makka sa kër ngay armale ba xatta waa makka ñoom bu aj jotee seeni kër la ñuy armale képp ko dëkk makka sa kër ngay armale booy aj makka la nga xam ne mooy umra daal lañ leen mayul bu dee umra moom fokk nga génn ba tanim dooga fa armale dooga dugg makka waaye bu dee aj gee moom yow mi nga xam ne da nga doon def tamattu yaa ngi dugg ak sa armal daa di umra ba pare summeeku sol sa yére ordinaire di xaar xaar aj makka gi suñ demee bu bisu juróom-ñetteel ba ca aj ga hôtel ba nga nekk wala kër ga nga nekk ca makka fa ngay armalaate rek dem ngi noonu ca sa aj googee loolu kon moom mooy waajib gu jëkk ci waajibu ihram nga xam ni boo ko deful da ngay war a rey ab gàtt amma ñaareel bi mooy a tajarrudi min al maxiit mooy nga summiiku ci lépp lu ñu sol mi ngi noonu waaw ci lépp lu ñu ñaw lépp lu ñu ñaw mi ngi noonu lépp da nga koy summi ngeen jéggal ñu xatta slip wala culotte yi nga soloon lépp ngay summi mi ngi noonu fala yalbisul muhrim sawban wala qamisan wala burnasan ki nga xam ne nii dafay armal du sol yére bu ñu ñëw du doon xamis mi ngi noonu du doon ay kaala gu dëgër gu muy kaalawoo mi ngi noonu wala ya'temu bi imaama du muuro it ak kaala wala yughatti ra'sahu bi shay'in abada boppam ba du ca du ko muur ci lenn lu mu mën a doon maadaama da nga armal sa bopp doo ca muur dara bu dee yow góor nga allahuma lu dul borom xam-xam yi toléré nañ li nga xam ne mooy parasol parasol ba nga xam ne dafa tiim bopp ba mais tegewul ci kaw bopp bi comme ni ngay mën a dugge ci néeg noonu it may nañ la nga utiliser parasol amma kaw bopp bi moom doo ko kaala kaala gu ñuy wëndeel doo ko kaala kaala guñ cee teg ila axiri mu ngi noonu mu ne kama la yalbisu xuffan wala xisaan du solit la nga xam ne mooy ay bot te sol la nga xamee ne nii dafa nekk ay dàll yu dul bot ca di yegg ca kosten ba li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yalbisu almuhrim alsawba wala alimama wala alsarawila wala albaranisa wala alxifaaf góor daal bu armale du sol yére bu ñu ñëw du kaalawu du sol pantalon du sol la nga xamee ni nii mooy kaala yi ñu laxas ca bopp ya du solit la nga xamee ni nii mooy ay bot déedéet illa man lam yajid naalayni falyalbis xuffayni xanaa koo xam ne amoo carax yoo sol su boobaa day mën ngaa sol ay bot wala yaqta'ahuma min asfali ka'bayni waaye na ko dagg ba ay dojoram di feeñ na ko dagg ba mu nekk ci suufu dojore muy feeñ su dee amul lu mu sol loolu it muy wane ne su dee ne amoo ay carax yoo sol soo amee sa dàll yi nga xam ne nii ay dàll yi muurul sa kosten ay training lam lu mën a doon yooyee des na ko mën a jëfandikoo kama la yalbisu min asiyaabi shay'an massahu za'rafan aw aw wars ki nga xam ne dafa armalit du sol yére yoo xam ne nii day dafa am parfum yoo xamee ni nii da caa nekk te mooy ñax yooyu mu wax yépp ñax la yu ñuy daan parfum woo wala tantaqibu almar'a wala talbisu alqaffazin jigéen moom buy armal lu ko neex sol waaye nag du muur kanamam du sol la nga xam ne mooy ay gant léerit mu ñuy jàngal ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam miinoon nañ jigéen ñi di muur seen kanam moo tax boo demee ci téere fiq yi ñu naan jigéen buy aj Makka du muur kanamam ngi noonu ci it mbokk ñu xam ni la gën ci jigéen mooy mu muur kanamam donte ne ñun ñi ngi ànd ak borom xam-xam yi jàpp ni muuru kanam googu du farata ci ñoom comme naka waa Arabie saoudite jàppe waaye daal nañ xam ni farata la du farata la nga xame ni nii mooy la gën ci jigéen mooy mu muur kanamam ba yaay Aïcha nee na ñun day bañ daan aji ji dañ daan muur suñuy dañ daan dindi suñuy kanam waaye buñ dajeeg ay góori jàmbur dañuy wàccee la nga xam ne mooy suñu muuraay ca loolu it bu dee dañ koo bëgg a jëfe moom la chaque ne jigéen buy aji tey ca du dajeeg góoru jàmbur loolu moom jafe na lool waaye nañ xam ni kon mi ngi noonu ci masala boobu noonu lañ ko tere mu sol ay gant ndax jigéenu jëkk ñi it xamoon la nañ leen sol ay gant te loolu it mooy la gën ci moom mooy jigéen ñu bañ a gis dara ci moom looloo gën ci moom amma nag bu dee borom xam-xam yi tolér yi gën a seen masala gën a tolérant mooy jigéen dagan na mu génne kanamam dagan na mu génne ay loxoom maa ngi namm ci loxo fi ñuy takk montre ba ci ay cati baaraamam amma fi ñuy takk montre jëm kaw loolu waru koo génne ci kanamu góori jàmbur lii mbokkoon mooy ñaareel bi mu lay won ne ki demoon màkka ca summeekuwul ku mel noonu fokk mu rey gàtt wala mu woor fukki fan ndax teggi na waajib ci waajibaatul xaj ñetteelu waajib bi ci aj mooy a talbiya talbiya mooy wuyu mooy wuyu suñu boroom wa hiya qawlu labbayk allahuma labbayk mooy yàlla wuy si naa la te maa ngi sax di la wuy si labbayka la sharika laka labbayk yàlla wuy si naa la amoo kenn koo bokk ak dara maa ngi sax di la wuy si inna alhamda wa nicmata laka wal mulk cant yépp ak xéewal yépp ñeel na la naka noo nit moomeelu lépp ñeel na la yaay booru lépp moom lépp la sharika lak amul kenn koo bokkaaleeg dara kon ki nga xam ne yéene ni di aji wala di umra heure bu taxawee lii lay wax lii lay wax ca it boo jàngee sa téere mu ne yaquluha almuhrim inda shuru'i fi lihram kii nga xam ne mooy ci armal da koy wax heure buy dugg ci armal bi wa huwa bil wa huwa bil miqaat lam yatajawazahu ca fekk ma nga ca miqaat ba rombagu ko wa yustahabu takraaruha wa rafu sawti biha sopp nañ ñuy baamu wax joojee sopp nañ yëkkati ca sa kàddu ba ñuy sos ak yow di ko dégg wa tajdi wa tajdidiha inda kulli munasabatin min nuzulin aw ruqub aw il iqamati salat aw faraxin minha noonu la ñu sopp heure boo xamee ni nii am na lu sosu ci yow nga commencé répéter talbiya boobee heure bu ngeen dee yéeg seeni oto heure bu ngeen dee wàcc seeni oto heure bu ñuy waaj a taxawal julli ak heure bu ñu jullee ba pare ki nga xamee ne ni mooy ujaaj bi di wax labbayk allahuma labbayk loole moom lay wax mu ne aw mulaqaati rifaq même bu doon da ngaa daje ak ñi nga xamee ne nii ay àndandoo lañu kon loole mbokk lay wax ci wàllu googi su ko defee la bayka boobee ci la ñuy sax ba ba bisu fukkeel ba ba nga sànni li ñuy tuddee jamratul aqaba soo ko sànni ca ngay doog a dagg sa la bayka yooyee allahuma lu dul kàddu gi it naka waa aj ya soxlaa noonu la ko jullit yépp soxlaa fu ñu mën a nekk ci kaw suuf te mooy labbayk allahuma labbayk mbokk diine lislaam mooy diine jël léppam waaye jullit du wax ne man tànn naa lii maa ngi koy def wala tànn naa lii maa ngi koy bàyyi bal li la yàlla sant lépp ngay jéem a def li la yàlla tere lépp ngay jéem a bàyyi ndax yaa ngi ne yàlla maa ngi lay wuyu si maa ngi sax ci di la wuyu si ci lépp loo ma sant mi ngi noonu loolu kon mbokk mooy ñett yi nga xam ni munta ñàkk ci ki jógoon ne day armal jëm ca kaaba ga ca mooy yéene ba muy yéene summeeku ba muy summeeku ak wax ja muy wax wuy ji boroomam jalla wa ala suñu delloo ci sunna yi as sunan هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه فيها دم sunna mooy loo xam ni ci aj makka armal da koo war a def waaye bu ko deful it kenn du ko sas mu tuur ca deret walakin yafuutuhu bi tarkiha ajran kabirun wa hiya waaye day bu ko deful yool bu màgg màgg day faat na ko ca sunna yooyu mooy juróom benn mbir yi mu lay wax bi ci jëkk al ixtisaalu lil ihram walaw lin nufasaai aw xaayit mooy heure boo jógee di ar di armal aj wala omra nga jëkk a sangu comme ni ngay sangoo farata même bu doon jigéen la bu jógoon di aji ji mag ñu dem ba fañ war a armale mu gis réglam ku mel noonu teewul day sangu mu wasin teewul day sangu iz anna imraatu imraatun li abi bakrin radiallahu anhu gis nañu ne benn soxna bu abubakar mi ngi tuddoon fatima bintu bintu umaysin ودأت وهي تنوي الحج فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار عندناك أبو بكر أجل النبي صلى الله عليه وسلم نيوبا ذو الحليفة سخن سفر وسيل دام باب صح أبو بكر من كتب لسن يلنت من محمد ابن أبو بكر موسين يلنت عليه السلام نكو أه سنغول nga armal suñu demee nga def lépp loo xamee ni nii ujaaj yi lañ koy def lu dul nag ne doo wër kaaba gi lu dul da nga laab te loolu it muy wane ni jigéen bi ànd ak baax wala mu wasin la ujaaj yi def ci dem arafat dem mina sànni jamra ya muzdalifa ila axiri daw sa fag marwa li lépp mën na ko ba mu des la nga xam ne mooy wër kaaba ga kon loolu moom mooy la jëkk ci sunna yi nga xam ne ku ko deful it doo ca am lu yàq sàcc ñaareel bi mooy al ihram fi ridain wa izaarin abyadayni nadifayni li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam zalik ñaareel bi it mooy heure booy armal yow góor nga armale benn looy làmbaayoo ak looy woddoo looy làmbaayoo ak looy woddoo loolu muy sunna su doon dafa am benn lu mu làmbaayoo kese rek mu lam mu muur yaramam yépp wala lu mu woddoo mu muur awraam dañ naan at gi wala umra gi baax na waaye yonent bi alayhi salaam dafa mën ñaari yére benn bi mu woddoo ko beneen lu mu làmbaayoo ko ñaareel biit ki soloon lu ñuul lu xonq lu chocolat aji aji aji màkk baax na waaye la yonent bi defoon mooy lu weex loolu mooy sunna daan wax ni day leen sol seen yére yu weex yi moo gën ci yére yi ngeen di sol day leen ci muur la nga xam ne mooy seen néew yi kon kiy armal su amee yére bu weex yére bu weex boobee bu set moom lay armale bokk na it luñ ciy wax mooy armal boobu bu tilimee da nga koy fóot wala nga changé ko moo tax nga gis mu ne na doon loo xam ne nazifay ne na set doonte ne lu bëri dañuy jàng aay bi suñu borom di wax naan summa liyaqdu tafasahum wal yuufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq ñu jàpp ne ñoom ki xes ba armal jëm ca kaaba ga fii demul ba sànni jamra ba watu du am droit sangu du am droit changer ay yéreem loolee mbokk njuumte la islaam amul fu muy gërëm a salte ci fenn waaye gis nañ ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndox daa jafe woon lool mbooloo ma fa daan dem lu ñu ne naan lañ ñu siiw amuñu woon kattan fu ñu toll di sangu wala fu ñu toll di fóot soo déggee ñu naan yow mu tarwiya te mooy bisu juróom-ñetteel ba ca zulhijja nga xam ne ci suba ga may arafaat lu tax ñu tudde ko yow mu tarwiya mooy bis boobee lañ daan root seeni mbuus fa seeni dem ñetti fan ci àll bi lum néew néew mi ngi noonu arafaat amul ndox mina amul ndox amuñ ndox mbuusu ndox boobee nga fa yóbbu ndax xalaat nañ nga naan dañ cee sangoog fóot sa yére laa wallah loolu kon ak jafe-jafe moo ko waraloon waaye la nga xamee ni nii mooy la yàlla jalla wa ala tere mooy lii ñëw ci kanam sa karaw bu ko laal say wee bu ko dagg ila axiri waaye amma bu dee sangu ak fóot loolee terewuñ la ko ñetteelu sunna bi mooy wuquu al ihram aqiba salati nafilatin aw farida bokk na ci ki nga xam ne day armal balaa summeeku mu ngi noon balaa balaa wax labbayk allahuma labbayk fa mu sangoo ba pare mu julli ñaari rakka taxaw nag daañu ne labbayk allahuma umra wala labbayk allahuma xajjan ñaari rakka yooyu muy julli sunna la su ko deful woon it du tee armalam day doon loo xam ne lu baax la su doonte ni daa tombeeg waxtu farata masalan ñëw na zul xalifa fekk mbooloo muy julli takkusaan mu julli leen ñoom takkusaan wala tisbaar su paree jarul muy def yéenam ñaari rakka fa mu sëlmalee rek mën naa armal ñu ngi noonu ñeenteelu sunna ci ki bëgg a armal mooy taqlimul azafir bala ngaa dugg ci armal nga lelli say wey wa qassu sharib wàññi say mustaas wa natfil ibt daa di wat sa karaw yi poqutaan doonte ne natf mooy rocci arab yi seen karaw yi poqutaan buñ defee ni buñ xëccee rek day deñ mais loolu nit ku ñuul mënu ko wala boo koy def da ngay sonn kon il faut yow da nga koy wat gannaaw ba wa xalqul aana mooy wat sa karawu naq li fiilihi sallallahu alayhi wa sallam zalik ndax yonent bi alayhi salaam avant muy armal yii yépp da koo defoon lu waral lii mooy soo xisee ba armal dañu lay tere nga laal say we laal lenn ci say karaw ak karaw ga fu mu mën a nekk ci sa yaram juróomeelu sunna ba takraaru talbiya ca mooy yeesal labbayka allahuma labbayka wa tajdidiha kullama tajaddat xaal min rukub aw nuzul aw salaat gannaaw ba mooy nga yeesal talbiya ba heure boo xamee ne nii dafa wees dafa yees benn xaal ci sa xaal benn melokaan ci da ngay yéeg wala da ngay wàcc wala da ngay julli li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man labba xatta taxruba shams amsa maxfuran lahu koo xam ne ni day fa nga armale yaa ngay sax di wax labbayk allahuma labbayk ba ba jant ba di so yow daañ la jéggal sa mboole mi bakkaar juróom-benneelu sunna bi mooy addu'aau wasalaatu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam mooy nit ki di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ay soxlaam mi ngi noonu aqiba talbiya gannaaw ba mu defee talbiya ba pare nga julli ci yonent bi ñaan is kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida faraga min altalbiya saala rabbahu aljanna wastaaza bihi min annar yenente bi mosaan def ay talbiya bokk na lu mu ko daan daaneele mooy ñaan yàlla mu may ko àjjana musal ko ci sawara te na gën nañ ko tee ñaane mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar mi ngi noonu kon lii mbokk dañuy gis ne moom mooy aju ci la nga xamee ne nii mooy en sunna yi aju ci aj makka googe mu des nag li ñuy tuddee almahzurat yi nga xam ne moom dañ koo tere ki nga xam ne dafa aj di ko def almahzurat hiya al a'malu al mamnu'a mooy jëf yi ñu tere walati law faalaha al mu'min la wajaba alayhi fiha fidyatu dammin aw siyaam mooy jëf yoo xam ne heure bu ko jullit defee dana jotu ci tur deret wala woor aw itaam wala mu leel ay miskin wa tilka al amalu hiya ca loolu mooy yii muy wax bi ci jëkk taxsiyatu rasi bi ay xitain kaan mooy nga muur sa bopp ak loo ko mën a muuree nit ki am na ay gaañu gaañu wala am na daal lu ko waral mu mu muur boppam soo muuree sa bopp su boobaa fokk nga tuur deret nga rey ab gàtt ñaareel bi xalqu sha'ri aw qassuhu wa in qalla heure boo watoo ci sa biir armal wala nga wàññi sa karaw ci sa biir armal da ngay rey ab gàtt wa sawaun kaana sha'ru ra's aw ghayrihi na doon loolu ca bopp bala wala leneen lu mën a doon ñetteel bi qalamul azafir heure boo lelee say we wa sawaun kaanat il yadayni aw rijlayni na doon loolee weeyu loxo la wala weeyu tànk la ñetteel bi ñeenteel bi mooy masu tiib ki xis ba armal ba pare heure bu laalaatee parfum su booba loolee day waral mu war a tuur deret wala mu woor ngi noonu avant ngay dugg ca armal ba nag bu la neexee parfum wu gannaaw ba mooy lubsul maxiit mutlaqan sol loo xam ne dañ koo ñëw heure boo solee loo xam ne dañ koo ñëw wareef la ci yow nga daal di tuur deret wala nga daal di woor fukki fan juróom benne bi mooy xatulu saydil bar mooy rey la ñuy rëbb ci jéeri ja ci suuf si li qawlihi taala ya ayuha alladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum suñu borom mu ne ay yéen julit ñi su ngeen xise ba armal bu leen rey lenn loo xam ne day dox ci suuf amma bu dee la nekk ci géej ga moom kenn terewu leen ñu napp juróom ñaareel ba mooy muqaddimatul jima bokk na sunna ci aj mooy lépp loo xam ne dafay jiitu ab sëy min qublatin ci nit ki foon soxnaam wa naxwihi ha ak lu mel noonu naam li qawlihi taala fala rafasa wala fusuqa wala jidali fi lxaj suñ borom mu ne ngal la waay ki nga xam ne dafay nekk ci armal bu mu def ar rafas bu mu def ak génnu topp bu mu nekk di dàggasante wal muraad min ar rafas muqaddimatul jima wa kullu ma yad'u ilayhi rafas bi liñ ko fi tere mooy lay jiitu ab sëy ak na doon loolu ci wax la wala ci ay jëf la heure boo ko defee ak sa soxna loolu day war ci nga joxe ab gàtt mi ngi noonu juróom ñetteel ba mooy aqdu nikah aw xitbat aw xitbatuhu mooy nit ki nga fas ab sëy wala ngay labat soxna te mooy ki armal moom munta takk soxna munul may kenn soxna mi ngi noonu munta takk soxna munul may kenn soxna looloo tax ki aj màkka ñu may ko gan ñu may ko soxna gannaawam wala jigéen bu aj màkka ñu may ko borom kër gannaawam loolu mën naa nekk waaye ngalawaay bu mu nekk ci jamono bi mu armalee ba baa muy génn ca armal ba mi ngi noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yankihu almuhrim wala yunkahu wala yaxtabu ki nga xam ne nii dafa armal du takk soxna kenn du ko takk mi ngi noonu mi ngi noonu du takk soxna kenn du ko may soxna te it du labat soxna mi ngi noonu juróom ñeenteel ba mooy aljima mooy nag nga ànd ak sa soxna ci sëy nag moom ci qawlihi taala suñu borom mu ne fala rafas wala fusuq wala jidaale fi lxaj comme niñ ko jàng ci gannaaw wa rafas chamilun lil jima wa muqaddimati rafas boobu day ëmb li nga xam ne mooy sëy ak la nga xamee ne nii dafay nekk di jiitu sëy boobee loolee kon mbokk dañuy gis ni moom moo aju ci la nga xamee ne nii moom mooy wàllu googee su ko defee ngir jeexal bunt boobe mu ne xukmu haadihi al mahzura lan mooy àtte juróom-ñeent yi mu la wax حكم هذه المحظورات الخمس الأولى من فعل واحدا منها وجب عليه فدية mooy yii mu la jàngal juróom yim la jëkk a wax ku ca def benn da nga joxe fidiya wa hiya siyaamu salaasati ayyaam ca mooy nga woor ñetti fan aw itaamu sittati masaakin wala nga woor juróom benni fan wala nga leel juróom benni miskin li kulli miskinin muddin min burr mooy miskin bu nekk nga daal di koy jox muddu mi ngi toll à peu près libre rek ci pepp aw zabhi sha wala nga rendi ab gàtt li qawlihi taala fa man kaana minkum maridan koo xam ne daa feebar aw bihi azam min rasi wala mu am lor ci boppam fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk koo xam ne feebar nga ba am ngant bëgg a watu na le na woor wala mu sarxe miskin wala mu rey ab gàtt wa amma qatlu sayd fa fihi jazaauhu bi misli bi mislihi min annaam kii nga xam ne nii dafa rey ab gàtt dafa rey am rëbb lu méngoog moom ca jurga lay rey masalan reyoon nga benn kéwél dañ naan la da nga rey xar wala nga rey béy li qawlihi taala fa fa jazaun mislu ma qatala min anam pay ga mooy na indi lu tol noonu ci xéewali yàlla xéewali nit ñi ci jur gi te muy giléem nag xar ak béy mu ne wa amma muqaddimatul jima bu dee la jiitu nag wax yi jiitu ak jëf yi jiitu sëy fa inna ala failiha damman loolu moom képp ku ko def fokk da nga tuur deret wa huwa zabhu sha te mooy rendi ab gàtt wa amma al jimaau waaye nag bu dee ànd ak sa soxna moom ci sëy fekk da ngeen a armal mu ne moom fa innahu yufsidul xajj bil mar kere moom aj ga yàqu na complètement gayra annahu yajibu l istimraaru fiihi lu dul na dañ naan la continuer aj gi day waraf nga continuer ko xatta yutimma wa ala saahibihi badna ay bair te dañ naan ko yow giléem nga war a rey fa in lam yajid saama ashrata ayyaam su amul mu woor fukki fan wa alayhi maa zalika alqadaau min aamin axar te it fokk aj googee da koy fay ci beneen at lama rawa malik fi lmuwatta malik nee na anna omar ibn alxataab wa ali ibn abi talib wa aba hurayra suilu an rajulun asaaba ahlahu wa huwa muhrim bilxaj ñëw nañ laaj leen ne leen waaw waa ji day daa ànd ak soxnaam ca ñoom ñi ngi nekk ci umra ñi ngi nekk ci armal pare guñu armal fa qaalu yanfuzaani yamdiyaani li wajhihima ñooñu day dañuy mottali continuer ca seen kanam mooy la desoon ci aj yëpp dañ koy def xatta yaqdiya xajjahuma ba baa ñuy pare seen xaj suma alayhima xajjun mi ngi noonu qaabil wala hadiyu gannaaw ba dañuy aj beneen aj pour remplacer aj googee ca dañuy jox hadiyu loolu nag mbokk buñ koy wax mooy ki ànd ak soxnaam amaa nag ka dem màkk di fa njaaloo moom loolu moom ëpp na tudd sax mi ngi noonu mu ne wa amma aqdu nikah bu dee ne nag fas fas fasu sëy wa xitbatuhu wala labat soxna wa sairu zunub ak mboolem bakkaar yi yi nit di def kal xiiba mel na ñe nekk màkk di jëw wa namima wala rambaaj wa kullu ma yadxulu taxta lafdi al fusuq ak lépp loo xam ne dafay dugg ci baatu génnuk topp fa fiihi tawbatun wal istixfar la ca war mooy bëril tuub ak jéggalu yàlla islam yarid an shari wadu kafaratin lahu siwa tawba wal istixfar ndax bu demee ci sharia gisuñu fa lenn lu dul ne bàkkaar yu bon yooyee nga xam ne bu dul aj sax bàkkaar la woon képp ku ko def ci biir ajit la la war rek mooy nga jéggalu borom bi tuub dellu ci borom bi mi ngi noonu yal na yàlla jéggal ñu wërsëgal ñu at gu mu gërëm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ki nga xam ne dañ dañ ko may soxna fekk dafa armal ndax dañ naan sëy bi wérul ala kulli xaal bu dee ñun ñëpp dañoo dëppoo ci ne atte boobu kenn man soo xalu ko su boobaa dañ naan sëy boobu dañ ko war a takkaat lu doon sëy bu wér lu dul ne boo delloo nag ci borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci loolu ci ndax ñi ki nga xam ne mooy Maymuna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujj a takk am na ñu bari ñu ne bi mu koy takk dafa armal looloo tax ñenn ci borom xam-xam yi di wax ne xadis yi dañ ko mën suuxal ala kulli xaal bu dee dañoo dëppoo ci ne xadis bi xadis bu wér la ci amuñu lenn lu koy dàq lépp loo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni lii duñ ko def su boobaa dañuy gis ne buñ ko defee sëy bu mel noonu dañ koo war a takkaat ndax dañ koo takk ci kaw lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu waaw waaw ki nga xam ne dafa def loo xam ne nii dañ koo tere fekk dafa juum ko mel noonu buñ ko ko waxee tamit day def kafaara day def kafaara loolu même bu dee ne dafa juum dafa def kafaara loolu masalan ki armaloon ba pare xamu ci mu dem watu su ñëwee watoo moom dañ naan ko amoo benn bakkaar waaye nag da ngay def kafaara mi ngi noonu maa nga rey ab gàtt wala nga woor ñetti fan loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam donte ne moom bu dee bàkkaar moom amu ca bàkkaar su dee daa xamul mi ngi noonu wala mu jum wala mu fàtte wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ala kulli xaal yi nga xam ne dañ ne ko yonente bi alayhi salaam dafa santaane ci ñu summeeku indil ko ci ay tegtal moom mu ne daal du summeeku kooku dafa am ñaari atte atte bu njëkk bi mooy ci wàllu sharia moom sharia danaan at gi fokk mu rey gàtt maadaam mu summeeku fokk mu rey gàtt mu des nag moom lu tax mu ne du summeeku ndax da koo teg ci jàpp ni nit ñi dañoo ëppal wala leneen mais bu ko tegee ci safaanoo ak sunna loolee moom day dellu ca xadis bi ñu doon wax ci aw imaamu malik rahimahullah waa ji taxawee ca jàkka ji ma bayk allahuma mu ne ko yeneen bi danoon ñu dem zul xalayfa mu ne mais fii ak zul xalayfa amul benn problème mooy différence yi loolu mu ne ko différence yi mooy suñu borom ne na moytu ñuy wuteeg yonent bi fitna dal leen ndax heure boo demee ba tegtal yi leer na yonent bi lii lay digle ba pare yow nga lànk safaanoog ndigalu yonent bi alayhi salaam loolee da lay génne ci cadre aj ak umra dugal la ci beneen cadre kon daal ci wàllu sharia moom dañ naan daa war a reyub gàtt amaa nag la tax mu mu mu def loolu nag la ñuy xool bu dee dafa jàpp ne nit ñoo ëppal duñ ko mën a toppee loolu waaye bu dee dafa jàpp ne moom daa fañ sunna yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam nee na man raghiba an sunnati fa laysa minni mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam mooy fa nga jógee mooy gox ba nga jógee su doonte ne ne tey jii lu bari ci sénégalais yi suñuy aji madina la ñuy jaar ñi jaar madina moom zul xulayfa la ñuy armale su dee ñuy dem direct makka lu mel ne boo duggoon lu mel ne ay sawja su ñu demee ba gox yi nga xamee ne nii fa nga war a armale dañ naan ñi ngi yegsi ci miqaat bi ñu am seen yéene dugal commencé labbayk allahuma labbayk donc gox bu nekk yow boo fa nekkee da ngay laaj ana ban fan mooy miiqaat bi gën a jege boo xamee ni da nga ko romb soo yegsee ci miiqaat boobee wala nga romb ci place boo xamee ni ne méngoo na ak moom ci digganteem ak Makka nga commencé def la nga xam ne nii moom mooy sa talbiya wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam waaleykum salaam fokk ku mel noonu dafay toog ba la nga xamee ne nii mooy deretam jeex mu doog a wër kaaba gi mu des nag benn muskila mushkila ci tey toll na foo xamee ne nii avion mi ngi dem te moo amul kattan toog mag loolee lu bari ci borom xam-xam yi dañ naan ku mel noonu dafay dem wër kaaba gi yi ngi noonu dafay dem wër kaaba gi dem nibbi su doonte ne am na kàttan toog fa wër kaabam du baax lu dul dafa laab su doonte ne dëkk na fu jege fu mu mën a dellusiwaat dañ naan ko demal dellusiwaat wër kaaba gi mais su dee ne dafa nekk gox yu sori ca moom xam ne ne dootul mën a dellusi ci makka ca ñii ñi ngi nar dem bàyyi ko fa buñ ko bàyyi di tumuranke ku mel noonu dañ naan na fagaru daal di wër kaaba gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam donte ne da ci boole yit la nga xam ne mooy fidya ab gàtt bu muy joxe wër kaaba gi loolee ndax munul def leneen lu dul loolu ndax aj màkka tant que wëroo kaaba gi aj gi baaxul wallahu subhanahu wa taala aalam mi ngi noonu ala kulli xaal kon mbokk ñu doy loo loolu di ñaan yàlla jàpp naa ab sénégalais boo ko bëggee xolam seet ak na ko yàlla na nga dem màkk am déet waaw kon ñun ñëpp yàlla nañu yàlla yóbbu màkk waaw ñu demoon it yàlla wërsëgaleen ñu dellu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain